ki nga xam ne tamit euh, moom mooy sama invité xam naa ci kanam tuuti rek dinañ ko jox kàddu moom ma Aliou Ba mhm. mu présenté wu ndax moom moom moo fi euh, fas yéene daal di teew waxtaane kilifa gi nga xam ne mhm. euh, Sénégal yëpp dégg nañ ko xam nañu ko xam mhm. tamit taxawaayam ci li nga xam ne moom mooy diine gi di El Hadj Ahmed Dem bu fi nga xam te moom mooy Sokone kon dinañ ci ñëw ci kanam tuuti rek incha allah daal di nag indaale ci ay kàddoom mu mi soxla nañu ñuy nuyu sax moom mi nu fas yéene waxtaanal muy Aliou Ba Aliou ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, maa ngi leen di euh, nuyu man it euh, di leen fay di kontaan bu baax. ci mhm. invitation bi. Mhm. ak ci ñëw bi ma ñëw ci Walfadjri. Mhm. xam naa bu temps amoon dinaa wax lu bari. ci Walfadjri bi rek. waaye macha allah kontaan bu baax daal di sant Sa euh, mhm. Ndiogou bu baax di sant biti di sant kii mm, di sant aussi ki ma évité mooy mhm. Fatima Fatima Sey mhm. macha allah ñi ñëpp miin naa seen karkanam yi nii yàgg naa leen suivre kon maa ngi kontaan bu baax di ñaan yàlla borom kër gi yal na yàlla dolli yërmande ci moom yërmande ci moom eh, li mu fi bàyyi yàlla sàmm ko. amin ba mu gën a màgg a rafet. amin ci kanam tuuti dinañu dugg ci waxtaan wi ñu dem régie ñëwaat. Adja Fatima ñu bàyyi la sama gan di uh, Aliou Ba gannaaw uh, daal dina nuyoo ba noppi ñu ñëw rek ci li nga xam te ni moom mooy uh, li ñu fi indi tey jii di kilifa gi di El Hadj Ahmed bu fi nga xam ni mooy Sokone kon ci lu jëm ci kilifa gi la ñuy démarrer ba noppi laata loolu sax danga ñuy présenter li nga xam ne moom mooy daayira bi ba pare ñu ñëw ci ki nga xam ne moom mooy kilifa gi.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 waaw ci li nga xam ne moom mooy euh, téere mu nga xam ne moom la bind ci euh, téere yi gën a siw tan fii su saalihiin ah. foofu mu fay euh, am benn kàddu boo xam te ni da koy fësal daan innal balaaya li saa'irina allaha taala hiyal mataaya di uh, baat boo xam te nee na ñiy dox jëm ca yàlla mhm. nattu yi mooy seen waruwaay mhm. mu mel ni dafay uh, wax loo xamante ni tey jii uh, di wàllum nattu ak li nga xam ne moom mooy nattu si boppam moom mooy lan mhm. eh, ci doomu aadama ndax bu ñu fàttale fàttalikoo suñu borom mu ngi wax euh, ci euh, li nga xam ne moom mooy suratul mulk hmm. nee na allazi xalaqal mawta wal xayaata li yabluwa li yabluwakum ayukum axsanu amala mu ne foofu yàlla mi nga xam ne mu ngi euh, daal di bind hmm. xalaqal mawt dee daal di dund daal di bind li nga xam te ne moom mooy dund foofu dafiy natt li nga xam ne moom mooy doomu aadama hmm. léegi li nga xam ne moom mooy nattu ak euh, ni ko kilifa gi daal di indee ci euh, téeram boobu. Mhm. lan nga ñu ci mën a wax. waaw maam euh, li nga wax noonu mooy dafa ne. Mhm. inna al balaaya mhm. li saairina ila allahi hiya al maanaam nattu yi ci ñi nga xam ne dañuy jëm si yàlla nattu yooyu ñu am ci yoon bi moom mooy seen waruwaay bi nga xam ne moom moo leen di yóbbu fa yàlla léegi nattu yi nag ay façon yu baree bari bari la mais yàlla ci booy xool ni muy jëflantee ak euh, doomu aadama yi dafa wuute ak ñun ni ñu jëflantee mm-hmm. ñun bu ñu amee xarit lépp lu baax lañ koy defal maanaam duñ ko teg coono mm-hmm. bu ñu amee noonu nag moom la ñuy sëf coono yàlla du noonu yàlla day jël noonam mm-hmm. di ko jox bànneex yi di jël xaritam di ko sëf coono yi uh-huh. ndax moom yàlla dafa bëggul euh, maanaam ci euh, digganteem ak xaritam bi kenn dox fa léegi bu la yàlla defal xéewal kese da ngay dem ba wéeru nit ñi léegi bu la yàlla tegee ay problème nag nit ñëpp lay daw léegi koy dese yàlla rek ngay dese. Mhm. su boobaa nag léegi nga nattu yi ñoom ñooy waruwaay bi nga xam ne moom moo la moom moo la delloo ci yàlla wax jooju mhm. nag mu ngi ko waxee ci téere bi nga xam ne mooy tanfisu saalihin min mhm. waswasaati taalihin euh, téere bi amoon na histoire boo xam ne moo taxoon mu bind ko waaye loolu jarul ñu ci dem mais li mu bëgg a wax rek mooy nattu moom maanaam nit bu amul nattu dafa war a tiit waaw am nattu bu ko nit amul dafa war a tiit ndax euh, yonent bi sallallahu nee na adduna bii ñu nekk maanaam moom mooy aljanna bu yéeféer di kasob jullit léegi nag bu dee jullit nga sa àdduna yëpp neex war ngaa tiit mm-hmm. mais ndax boo amee naqar nag xamal ne yow léegi yaa ngay bokk ci gaay yi nga xam ne dañuy delluwaat ci borom bi boo xoolee téere boobu aussi wax na ci lu bari ci yu mel noonu mm-hmm. d'accord euh, laata ñuy ñëw ci li nga xam ne moom mooy bés bi rek damay baa di bàyyeek euh, ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi. Mhm. Euh, dem ci dem présenté nga kilifa géeg yépp. Mhm. dañuy rek ñëwaat ci baat bi ndax am na lu bari loo xam ne du ñàkk. Mhm. Euh, Chouaïbou Diop euh, mën na ko daal di euh, wax ci baat boobu nga xam ni moom la wax mooy mm. lu jëm ci li nga xam ne moom la wax naa ne innal balaaya li saa irina mm. ilallahi hiyal mataaya di mm. baat bi nga xam ni moom mooy nattu yi seen waruwaay lañ fi nga xam ne moom laa ko posé question bu njëkk moom mooy suñu borom bi mu waxee si si si alxuraan ak Euh, dund euh, li nga xam ne moom mooy euh, dee daal di ci tekk li nga xam ne moom mooy xalaqal mawta wal xayaat ak li di dund mm-hmm. ngir ngeen si def nattu leen ci ndax di ngeen ci mën a def lu baax mm-hmm. mu mel ni nag nattu suwaay bu am na ay pàcc yu bëri yuñ ko mën a teglee mm-hmm. nattu nañu la ndax suñu borom def laa bëgg comme ni mu wax léegi ne suñu yonante bi sallallahu alayhi wa nee na jaam bu mu bëgg da koy nattu nattu yu metti nattu nañu la tamit ngir xool sa capacité nattu nañu la tamit eh, ngir xool tamit eh, li nga xam ne moom mooy sa lottu ci kanam suñu borom hmm. ak yeneen ak yeneen yoo xam te mën nañu ko eh, misaale lii di wàllum nattu hmm. tey jii ñu toll ci jamono joo xam ni bari na loolu nattu li ci mujj rek moom mooy accident bi nga xam ni moom moo am ci fi nga xam ne moom mooy si kilo hmm. ba ay doomu aadama yu bëri ñàkk ci seen bakken tey est-ce que tamit du ñu dem ba jamono joo xam ne wax nañu nattu jëm ci punition bu bu jóge suñu borom jërëjëf euh, Fatimata Seye Ndir euh, béti yàlla kii. sa ah, ci lim la tëglu euh, jërëjëf kilifa gi ñu ngi rafetlu taxawaay bi. Mhm. Mm-hmm. ak teewaay bi tamit am na solo. Mm-hmm. li ma gën a impressionné ci wax ji mooy xale nga. Mm-hmm. mais gis naa ni yaa ngi topp njàngale ak jaar jaaru kilifa gi nga xam ne moom nga fi teewal tey di ko waxtaanee. te loolu nag dafa am solo am réew moom la Seydi Hadji Malick si waxoon waa ji ba mu ñëwee ni ko dañuy def ab daayira muy ay xale kese mm-hmm. mu ni mënta nekk ci déwén sa ay mag ñëw mu ni mënta nekk mm-hmm. bi mag ñi xale yi nag dajaloo ñëw mu ni waa nii la war a demee mm-hmm. kon nag li nga def am na solo waaye la ci bépp ndaw boo xam ni kon da nga toll ci diggante baali caaxaani fooy nga xam ne war nañu mën a gëstu suñu mag ñi ba pare topp seenum jàngale yal yàlla fay la ci loolu euh, wa ma utitu min ilmi ilaa xalila loolu nag buñ ci déggee li ñu li ñu li ñu kilifa gi indil mooy kon xolam mag ñi ak seen xam-xam bu bari bi mhm. te yàlla pourtant ni tuuti la leen tuuti laa leen jox ci mhm. xam-xam mhm. nit toog fii mën a waxtaane benn quatre heures kenn ci magi Sénégal yi du jeexal li mu jàngale kon danga nga ciy déggee ni kon li na ci yàlla bari na li yàlla yore bari na li mu peeg bari na waaye ku ci nekk ak lëm la sédd ngeen indi nag ci nattu ak muñ pourtant bi muy wax léegi ci la sama xel de mooy li yonent bi alayhi salaatu waxoon ni maanaam àddina dafa nekk bànneexu dafa ne kasu yéeféer yi kasa dafa ne kasu jullit ñi di bànneex ci yéeféer yi mm-hmm. boo waree dem fa nga jëm am na ay pakk yu lay xaar yu mhm. baree bare mhm. mhm. loolu moo waral ñoom bi ñu jàngee yéen laay wax kumbéti nee na yaama raw d'accord bi ñu jàngee ci alxuraan <laughs> li kulli sabarin sakoorin ñu xam ne kon muñ kët boo gis sant lay mujj euh, li Seydi Hadji Malick Sy waxoon ne bi mu jàngee xaasirin isa xasara ci alxuraan ci la moom ci la gëm ni sa ndekk iñaan am na moom dafa yaakaaroon iñaan amul mais ne bi mu jàngee bañ jàngal ko xaasirin isa xasada mu ne ah nit dina iñaan xol ndekk kon nit dina jàpp kii mais man bi ma demee ba xam loolu muy asabru nisful iman wala li kulli sabarin sakkurin mm-hmm, mm-hmm. faatima lu bëri dafa oyof ci man maanaam muñ boo gis sant lay mujje mm-hmm. kon li ngay li ngay li ngay jéggi mu ne ci sa kanam jàppal ne am na leneen luy ñëw mag ñi nag loolu la ñu xamoon uh-huh. préparé ci seen dund xam ni yàlla lu mu la teg muy ay natt jàppal ni ay ngëneel mi ci kaw moo tax sëñ Samba daan wax naan booy dund bu mettee mhm. na nga xalaat ëllëg dana neex waaye bu neexee ëllëg na nga xalaat ëllëg dana metti mhm. muy ñaar yoo xam ne nit ki mënul dund benn bàyyi ci morom ndax yàlla dafa xuppe fii mhm. daal di bégle fii mag ñi nag wax dëgg yàlla li ñu indi dafa riche ci côté yëpp nag te ay exemple lañ itamit xam nga mënuñu toog tey ci Sénégal wax nga ko léegi ñuy am ay yeneen royuwaay yoo xam ni dañ koy jéggi ci senegal te senegal lépp a ngi fi exemple am na ku daan wax ni tey bu fekkee da nga bëgg a jéggi Sénégal di jëli ji jeneen jigéen mm-hmm. soxna jaaraa ngi fi mm-hmm. soxna faa waat doyale fi mu ngi fi mm-hmm. soxna asu jànqa yaayu uh, uh, kii uh, baay mi ngi fi mag ñëpp ci senegal fii lu ñuy jëggaane ci jigéen am na fi du ab arab booy jëli di ko tegtaloo du keneen ku ku kuñ ku weexit koo jëli koo xam ne am mag la moo xam ne mhm. magu arab la mooy tegtaloo lépp a ngi fii ci Sénégal lépp mu mhm. ngi fii ci Sénégal te xam xeetu xam-xam yëpp la ñu jàngale mhm. kon dama jàpp ne nag lii am tey lu am solo loo xam ni na ndaw ñu retrouver waat xam ne jamono lëndëm na yàqu-yàqu gi bari na mais nañu roy ci ñii nga xam ne tey ñoom nga fi indi di leen waxtaanee ñu xam ni kat muñ mooy jàllale ndaw jamono bi metti na de mais boo ko gëmee dana metti lool ndax man mi soaay bu dox naa ba tàyyi liggéey yor naa téeméer dërëm di ci paas diggante mhm. Saint-Lazare ak Thiaroye mhm. di ci ndékki di ci añ bu ma ñëwee jox ci madam tée ci des xool lu ma lijjanti mhm. mais loolu lépp ko la kon ci ndaw ci nekk la nga nekk butigu mbagg la yanul nga jàpp nga nga nga góorgóorlu ne dana baax xam-xam la dañ lay dóor dañ lay karawaase dañ lay yee yoo xam ne si da nga ko siy gis ndax yàlla mu ngi ànd ak aji muñkat yi mu ngi noonu euh, euh, <laughs> waaye bu jóg ñu doon wax ci lii di wàllum euh, nattu nattu dafa bokk ci dund doomu aadama mhm. buñ la nattootu rek mooy ne faatu nga dem nga sa yoon mhm. donc si si ñun la bokk tey sandiogu ñu toll ci jamono joo xam ne ñu ngi ci ay nattu yu metti mhm. ndax accident bi fi mujj rek ay nattu la yu metti épreuve la boo xam te ni tegal nañu ko tey jii noo gisee épreuve ndax suñu suñuy jàng yenn saa dañuy oo ci classe d'examen nañu dañ leen di natt tey jii muy position wala examen euh, tey jii ñu toll ci examen boo xamante ni ku nekk yaa ngi wax sa morom ne kii mooy responsable kii mooy responsable te fekk na nattu la boo xam ne suñu borom da ko indi pour ñun ñëpp ku si nekk daal di xoolaat euh, sa sa taxawaay tey nan nga gisee nattu bi nga xam ni tamit euh, si la ñu nekk jamono ji ndax dañuy laal actualité. macha allah bi am na solo. Mm-hmm. rafetlu bu baax. kilifa gi nga xam ni. moom moo fi teew moo fi mm-hmm. di. waxtaan ci góor gu tedd googu nga xamante ni ay mag lañ yoo xamante ni seenam njàngale ku ci taxaw ku ne rek mm-hmm. doo juum maanaam gindi nañ nit ñi bu yàgg mm-hmm. ci ay façon ci seenam mbind mm-hmm. ñu gindi nit ñi bu yàgg ci kàddu yi nga xamante ni eh, yëkkati nañ ko muy li nga xam ni moom nga wax nii rek lii rek ub na débat bi maanaam que ni nit ñi euh, di plaindre ak wëlbatiku di wax fu ne muñal mm-hmm. parce que nattu ay épreuve la xam nga ki nga xam ne jàpp na ne léegi li mu nekk nii mm-hmm. jaamu yàlla la maanaam doon soppe borom bi moo tax mu di ko tegal lii mm-hmm. parce que nit ki bu demee ba toll foofu rek loolu doo day woyof ci moom tool dootul doon dara parce day xam ne yëpp ay obstacle la yoo xam ne borom bee ko teg c'est parce que ab soppeem la moo tax mu tegal ko yii nga xam ni moom la ko tegal nga ne yonent bi wax na ni kaso ju àddina kaso la ci jullit ñi kon nga gis ni tey jii pare saa yi loolu bu ñu ko waxee sax am na koo xam ne mën naa gis nit ku am alal sax mu jàpp ni bon kii moom mi ngi ci lu neex fekk ne kooku nekkul ci lu neex sax parce que jàpp na ni moom mi ngi ci kaso mhm. mhm. yooyu nag day fenn ci ay doxalinam mhm. ak na nga xam noonu lay jëflanteeg nit ñi am na ñoo xam ne saa yu ñu xëyee ñi ngi xool yittee nit ñi ak problème nit ñi di ca def ak nan lañ mën a def pour diine ji gën a jëm ca kanam donc yooyu nekk loo xam ne vraiment njàngale yoo xamante ne bii euh, bu ñu gisee tamit ndaw ñu mel ni yow ak ñooñu xirtulu ci mbir moomu dafay am solo ngir ñu gën ko mën a wasaare rawatina fi jamono toll tey mhm. parce que jamono caaxaan bari na euh, kii bari na trop boo gisee ndaw ñoo xamante ni bi ñi ngi gëstu ji mbind mu mag ñi di ko indi ci pénc mi di leen ko fàttali loolu da ngay gis ni lu am solo la macha allah mhm, en tout cas ñi ngi koy rafetlu bu baax kàddu yi moom euh, am na solo mhm. euh, bu baax a baax a baax voilà gis invité bi. waaw xam nga euh, man man euh, sëñ Ahmed Dem dama ko doon euh, dégg ci sama benn borom këru tànta moom moo gën ci attirer sama attention ay ah, waaye jile ba grand bu yi ngeen di firi may leen ñu ñu eggali Cheikh Bara dina ñëw. ma ko doon dégg ci Pabadou Diagne maa ngi koy ziar di ko nuyu bu baax a baax bokk na ci bi ñuy tax ma dégg tur bi wala ma jàpp ko. waa Sokone yi. damay laaj xam nga tey jii heure bu ñu fi indee mag bu baax ñu ne doon na wër di di tasaare njàngaleem. ak yi nga xamante ni moom la yàlla suñu borom def ci moom moom nag ma bëggoon a xam ndax daan na jógee comme di nga fi jot wax ni fi mu jàngee yi mu jaar ba wàcc ci Sokone mm-hmm. ndax daan na wër biir réew mi di di di tasaare li nga xamante ni eh, yàlla suñu borom defoon na ko ci moom mm-hmm. ak ak yi may dégg naan mag ñi dañ daan wër di sanc ay daara ak eh, di defar nit ñi ndax moom loolu am na ci dëkk yoo xam ne jot na fa dem ba ñu ba ñu lu mel ni gàmmu ñu ko ko fay defal ak yooyu Mhm. waaw euh, loolu nga laaj noonu lu am solo la xam nga nit bu wuutee xam-xam mhm. dafa mel ni ku rooti woon mhm. boo rootee ba pare li nga indi boo ko dencee kon nga bañoo dem rooti sax moo gën maanaam mag ñi buñ daan jàng buñ jàngee ba pare ñoom dañuy ñëw rek commencé jàngale moom euh, bi mu ñëwee pare nee naa la mu ngi dem Sokone 1914 euh, bi mu demee fekk na Sokone mu taxaw mais bi mu demee dafa dem rek def daara. Mm. di commencé di jàngale. Mm. ba pare nag di dundal boppam te doon bay. bay dundee waaw bay dundee yor mm. boppam. te macha allah moom ku yàlla mayoon la. gis nga jamono maanaam bi mu doon dund yàlla may na ko mu ngi génn àdduna 1973. mais ci dundam amoon na ñaari oto. ca jamono jooju jamono bu mu doon dund. Mm-hmm. am na benn oto boo xam ne boobu Sénégal est nekkul ñetti nit ñoo ko amoon. Mm-hmm. bi muy aj mu ngi toll presque 30 maanaam moom jëkku woon na boppam mm-hmm. te sanc na aussi ab dëkk mm-hmm. di def gàmmo comme ni ñuy defee gàmmo di def aussi ziar bi nga xam ne bi mu tëjee tafsiram bi di ko mm-hmm. sante borom bi woo nit ñi pour ñu santale ko da koy def euh, chaque weeru février la koy la lañ koy la koy waa koon di def maanaam ci ay njàngaleem est-ce que yéen a ngi jéem tas ko. parce que mag ñi dañuy bind dañ daan bind lu bari di bàyyi. waaw ndax mais nag boo xoolee ci njaboot gi des fois dañ koy denc. Mhm. wala bu nu soxlaa rek dem ndax yéen a ngi jéem di tas njàngaleem njàngam ne nga xamante ne bàyyi na ko fi. waaw maam xam nga bi mu jàngee ba pare. Mhm. dafa bind. li mu bind nag li ci gën a rëy te bu gën a te moo moom rek doy na lépp. mooy tafsir bi mu def. parce que tafsir bi ñaar fukki at la ko def. ëmb na lépp ñaar fukki at ñaar fukki volume la. Mm. mooy na Diyaawu rey maanaam ñaar fukki volume la ñaar fukki at la ko bind te bi mu koy bind maanaam xal wowutoon ah. maanaam teewul da daan dem di di bu événement diine ñëwee ñu éviter ko day dem bu waree dem tool day dem tool buy jàngale day jàngale waaw di bind téere bi mm-hmm. diggante 1939 ba 1959 xam nga ñaar fukki at def na ko mm-hmm. bu mu paree jàngal na ay nit mm-hmm. yar ay nit te bi mu jàngalee pare moom daan na def euh, dafa déggoon ay lang yu bari parce que daan na wax ay juróom-ñaari langue ci langue yoo xam ne moo fa daa nekk maanaam ñu doon ñëw ci moom. nekkuloon di wax benn benn lang lañ doon wax. mais langue yu bari yu bari la doon wax. Mm-hmm. moom pël la. waaw wante déggoon na lang yi yu wuute yi. ñu doon ñëw ci moom da doon jàngal aussi ci noonu. yu mm-hmm. pare aussi doomam bi ñu ëpp ci doomam jigéen ñi def leen mayaat taalim yi nga xam ne. ñoom la jàngal ñoo jokk woon ci moom ñoom la jàngal ñu ñëw ci journée waaw ñu ñëw ci euh, journée bi euh, ndax nag euh, dimanche la. Mhm. tey jii lan nga ñu mën a wax ci journée boobu. waaw xam nga kii mu ngi laaj ci biir question bi sax mu ne. Mhm. ndax famille baa ngi góorgóorlu pour tasaare. tasaare ay mbindam ak li mu fi bàyyi. Mhm. gis nga mbindam boobu ñu bi bindoo mooy tafsir bi. biñ ko bindee. ci jamono Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade moo fexe ba delloosiwaat ko. léegi après nag ñu muul ko muul bu rëy. mais après ñu muulaat ko muul boo xam ne gën naa ndaw boobu ci jamono Macky Sall bi defe naa ñoom ñoo ko muul mhm. léegi nag euh, daayira bii di Safinatoul Najaat lii seen programme mhm. mooy xam nga Sokone dafa sori nga Sokone mu ngi ci région Fatick bi mhm. léegi Ndakaaru Ndakaaru mooy centre bi mooy lépp léegi nag ñu fexe di fi def journée boo xam ne culturelle la boo xam ne yow mu taqaaf yi su ko defee ñi fi nekk yëpp ñoom it ñu gën a xam kii mooy kan su ko defee daañu lépp lu fay waxtaane ci thème dañ koy jëlee ci ay téeram di ko ci waxtaanee. waa Sokone fekk si mhm. leen. waaw waa Sokone fekk si leen ndax bu ñu mhm. koy def ñu koy def ci ndigalu euh, xalifa ba. bi waaw mais lépp lu ñu fay def daal thème bu ñu fa mën a développé ci téere lañ jël boo demee daañu génnee aussi euh, jaar daaru dundam gi wanewaat ko. Mhm. Euh, wanewaat lim bind. wax fu mu toll ak liñ ciy jéem a def. maanaam loolu luñ ci namm rek mooy gën yaatal mbind mi. te aussi nit ñi di ci jël exemple gis nga li kii def ni li ci am solo mm. mooy nit su ñu waxee li mu jàng wax li mu bind yëpp mm-hmm. lenn rek mooy objectif bi mooy defar nit mm-hmm. waaw maanaam bu ñu ñëwee taxaw di tàgg nit ki téere bi mu bind loolu yëpp loolu noonu am na solo de mais li am solo mooy comme li nga jël benn baat ni mm-hmm. nga ne ah wax na baat sangam de léegi jamonoy nattu ñëw na léegi nit ñi nañu xam ne nattu maanaam yàlla ki mu bëgg lay natt. noonu la rubrique bi tudd sax xam nga léegi waaw parce que léegi mm-hmm. yaa ngi gis euh, li tax baat bi am solo. Mm-hmm. ma yaa ngi gis léegi comme euh, natt bi am ni fan yii nii. yaa ngis ñoo xam dañuy génn naan nangam moo tax. Mm-hmm. nangam moo tax nangam moo tax gis nga yàlla loolu ci magga yoon lay bokk. tey ku fi reyoon ni dañ naan diwa ko rey. te képp ku faatu yàllaa ko rey. waaye dañuy sakk keneen moo ko rey yàlla moom nee na man maay rey. waaye nit ñi dañu koy bàyyi naan diwa rey. léegi natt bu ñëwee dañu war a wax ne natt bi de yàlla moo ko def. kon yàlla bëgg nañu nañu nañu bu ñu bëggee mooy daf ñu jàjjiwaat pour ñu dellu ci moom. waaw d'accord journée bi kañ la. journée bi euh, dimanche bi ñëw la. Mhm. Euh, les quinze ñu ngi koy defaree ci CICES. CICES waaw. Mhm. incha allah yal nañu si yàlla yóbboog euh, jàmm. waaw suba teel lay commencé boori 10 heures yoo lay commencé waaw 10 heures. njàngum alxuraan ak njàngale sëriñ beeg yooyu yëpp ngeen ci waaw bi daal lépp mu ngi ci mm-hmm. macha allah bii nag mooy nekk euh, troisième édition troisième édition troisième édition d'accord macha allah jërë ñu koy jaajëfal Aliou Ba ñu bàyyi la rek nga daal di tàggatoo ak téléspectateurs yi mm-hmm. maa ngi euh, kontaan bu baax di ñaan yàlla daal yal na yàlla yokku Walfadjri amiin yàlla yërëm oustaz Sidi Lamine man moom ku ko sopp la mm-hmm. sopp boo xam ne képp ku ma gis ka dina ko xam xam naa ñi ñi ma ñi ma gis ni même bi mu faatoo nii sax Mm-hmm. def naa ci moom fukki martiya boo xam ne man maa ko def mm-hmm. te sopp bi ma ko sopp mm-hmm. dama doon wax ne bu ma yàlla mayee doom góor doom bu góor moom laa koy tuddee uh-huh. bu ma yàlla mayee doom loolu yàlla defal na ma ko ah, macha allah waaw macha allah loolu loolu lu am solo la kon kay. mbir mi nuyu ñu ko waay. waaw Sidi Lamine euh, Sidi Lamine Ba. waaw ndeysaan <laughs> yàlla dund. amiin waay te surtout turandoom fan. amiin amiin